jaar Serigne Touba nee na sa mbiram bopp la nee na moom Serigne Atou mii nee na wàcc tey nee na moom Serigne Mahmadan xam na ci Serigne lu bëree bari nee na ci diggam ak Cheikh Abdou Lahad waajuram ba nee na loolu mooy sababu bi xew-xew bi amee nee na mu ñëw teew fi ba lépp jeex nee na ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké nee na ngir moom mu ñëw fi jëmmal fi Cheikh Abdou Lahad nee na li tax mu def ko mooy xam ku mu xam lu xewoon diggante Aatu ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké nee na moom sëñ Aatu nee na am na cër bu rëy rëy nee na moom bi mu mujjee waxanteeg moom ay kàddu yàggul dara nee na bokk na ca la ko sëriñ Aatu waxoon nee ñoom ñaar mooy sin mujjee wax ci kaw suuf nee na mooy li ko Cheikh Abdou Lahad wax moom mii. aatu dafa nekk ko li ma Cheikh Abdou Lahad Mbacke wax. yow na moom sëñ Mahmadan mii di doomam. su ma la ko nettali woon. na moom sëñ aatu ko su ma la ko nettali woon. nga na nga di ko fiire sa digganteeg sëñ Abdou Lahad. nee na sëñ aatu ne ko secret boobu duma ma ko nettali mukk lu dul yamal xëyam. na loolu kàddu yooyu la mujjee waxanteeg sëñ Mahmadan. nee na yàlla def sëriñ ma sëriñ aatu. nee na li ko booleeg Cheikh Abdou Lahad Mbacké. nee na Cheikh Abdou Lahad Mbacké day koo xamante ni. pësteef lay téye ci nee na pësteef lay téye ci nit. nee na bi ñu taxawee ñoom daara Hizbut Tarqiyyah. te taxaw ci jamono. nee na te taxaw ci jamono Cheikh Abdou Lahad. nee na ca ba nëgë ni. fu ñu jaar rek moo nee na fépp foo xamante ni rek gis ngeen Hizbut Tarqiyyah suñu aatu jaar fa suñu plaatee leen fa jaar loo woon. nee na ñun doon doxee tamit sëñ Abdou Lahat leen ko waxoon nee na ba si tey fii na nee na moom sëñ aatu ci boppam nee na Cheikh Ibrahima Diagne mii waajuram ci jur ko nee na sëñ aatu sëñ Abdou dana ko demal wool ma sa baay nee na mu woo sëñ Ibrahima Diagne mii waajur sëñ aatu mën ñëw ci kër gi nee na sëñ Abdou Lahat Mbacke yendoog moom nee na mu woo ko ne ko woo sëñ aatu mu toog ne ko aatu mii de. xaw ma yow mii waajuram. nee na xaw ma yow mii di waajuram. gërëm nga nee na xaw ma gërëm nga comme déet. nee na waaye mu ne ko man de. gërëm mu ne ko man de Cheikh Abdou Lahad gërëm naa suñu aatu mii. bàyyam seeral ko ne ko. bàyyam aatu ne ko man ma seere ci moom. sama ngërëm. ne ko sama ngërëm. ci biir ngërëm la ne ko sama ngërëm ci sa biir ngërëm la tàbb yow Cheikh Abdou Lahad. kon nag aatu. mu ne ko yow kon suñu aatu. mu ne ko yow suñu Ibrahima Diagne. mu ne ko yow suñu Ibrahima Diagne. nee na ko yow mii waajuru si aatu. aatu bu dee bu dee ku ñuy jaay. nee na mu ne ko aatu bu fekkee ku ñuy jaay la. jaay ma ko nee na suñu laaj ne ko jaay ma ko. maye. mu ne bu fekkee lu ñuy maye. yalwaan naa ko. nee na yalwaan naa bu dee lu ñuy maye. nee na mu ne bu dee lu ñuy maye. yalwaan naa ko. nee na mu ne ko yalwaan naa la ko. bu dee bu ñuy maye ñaan naa la ko. nee mu ne ko bu dee lu ñuy maye ñaan naa la ko. bu dee lu ñuy sarax it yalwaan naa ko. mu ne ko bu fekkee lu ñuy saraxale tamit saraxu naa la aatu mi. mu ne ko li ma am si ko lépp mu ne ko moom waajuram sëñ Ibrahima Diagne ne ko li ma am ci atu lépp ne ko jox naa la ko nee na sëñ laa daal di koy téye nag nee na téye leen ñoom ñëpp nag nee na ngir nargal leen ci yoonu Seexul Xadim nee na sëñ Abdoulaye da leen daan wax ne su ma leen séenee ngeen di su ma leen séenee yéen ngeen di ñëw am dara lu rax ci yéen nee na am dara lu rax ci yéen bala maa am jàmm nee na bala maa am jàmm nee na damaa dindi loola ba mu set ci yéen moom nag na moom sëñ aatu nag nee na li mu doon wut lépp am na ko. am na ci yoo xam ne nee am na ci yoo xam ne nag. mu sañ-sañu leeral. nee na moom mii du am sañ-sañu leeral loolu nag. danaa nee na dana ci wax tuuti rek. ngir dalal xel yi. ngir yi. ak li ñu toppoon ci ginnaaw. ak fedd li ñu toppoon ci ginnaaw. loolu moo na loolu moo di. ci maam moom ay yoon yoon. nee na loolu moom mii jokkante na ci si ñëpp Mahmadan mi ay yoon yoon. nee na nekk na ko si naa mii dépp taaw. nee na si ñëpp laaj da ko woowaat beral nee na mu ñëw mu téye ko fa nee na mat na ay at bis nee na juróom-ñetteelu fan ba nee na mu woo suñu aatu ba mu ñëw mu ne ko demal nekk si Cheikh Bara Khourédia nee na mu ne ko biteel ba nga fekk ca Rumba nee na mu ne ko nee ko sëcc naan te ñëwaat fekk ma fii nee na suñu aatu def loola nee na mu téye waataat ko nee na ba bis ba jël si nee na mu waat ko ba mu ñëw mu ne ko delluwaatal nit si Cheikh Bara Khourédia nee na bitéel ba nga fa fekk nee na nga ne ko secc naan te ñëw fekkaat ma fii nee na ba mu ko defee ba del si nag nee na mu di ko yeewi nag ngir suñu aatu war a dem ci liggéey ba nee na mu daal ne ko nee na mu ne ko dama la doon suude ak Serigne Touba. nee na mu ne ko suude naa la ak Serigne Touba nag. nee na loolu dara mën na ko weesu ci àddina. nee na ñoom ñii sëñ Mahamadan. nee na ñoom amuñu loolu ci Serigne Abdou te moom am na ko. nee li ko taxaw nu jub moom. nee na Serigne Touba dong la woon. nee na gisul woon lenn lu dul Serigne bi. moom ñi mu àndal. nee lam doon yaakaar ci Serigne Touba. di ko ca mbébét. xam na ne xam na ne. tey jii ku ko fekkoon fa mu fa mu nekk. nee na dana rëccu lépp lu mu mas a dellu sëñ Touba. nee na xeeb ko ngir war a liggéeyaat sëñ Touba. nee na si sëñ seexu naa. nee na na ngeen góorgóorlu. nee na lu jafe am leen ko. nee na moom mii la ko sëñ Abdou Lahad dénkoon rek la leen di dénk. nee na ñoom njaboot bi ñëpp la ko dénkoon. nee na dana ko àdduna du ma ko fàggul kenn. nee ku ne mu ne ko mën nga ko fàggul sa bopp. nee la ma def sama jom daal. mooy ëllëg gënu jëm. nee na kenn tànni leen fa dara. nee na loola la jom. nee lu mu mas a liggéey Sëñ Tuubaa. nee na ñoom ñi njaboot gi la jiital ci biir na yéen mu ne leen kon fondement am ngeen ko nee mu ne ko ku am fondement nee na tegal a dese nee na suñu aatu mii nag nee na leen di njabootam nee na loolu rek leen di wax nee dafa jëloon ak dundam sacrifice ko sacrifice alalam nee na jàngam nee na ñii di njaboot ak boppam bu sacrifice la nee na jox lépp sëñ Touba. bàyyi leen ak sëñ Touba nee na bàyyi leen ak sëñ nag. teg na leen loxo. nee na yéen ñii di njabootam sëñ Touba teg na leen loxo. nee na góorgóorlu rek a ci des. Mayacine. nee na sëñ Mayacine. ana Mayacine. Mayacine. nee na sëñ Mayacine. Seck dégg yow dégg na li nga wax lépp. yow yaa ngi moom ngeen bu baax. seq na lu bari. nee lu bari. nee am naa ak waxtaan. nee du ci jataayu tey bii de. nee na doonu fi nee na waaye dina am lu waxtaan ak yéen de nee na sëñ Seexuna mii nee na daa am ci moom bari